di nuyu mbokki jullit yi ñuy saraan yëpp ci àddina bi tàmbalee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd na ko wér euh, alhamdulilahi rabbil alamin ci bis bi nga xam ne ñëw ngeen fi euh, ngir yaatal liggéey bi mu nekk lu am am solo mbooloo mi day mi ngi tudd ahlu xidmat yi ahlu xidmat di lëkkale ay ndayi daara ak i bàyyi daara ak sëriñ daara yi ñoom ñoo boole kuréel gi jàppoo ngir jàppale donc daara yi muy kuréel gën koo xam ne ñu ngi samp seen i bànqaas ci Touba samp ay ndayi daara yu bari loo xam ne fi mu toll nii mat nañ 60 yoo xam ne sampagoon na leen ci dëkk bi lay seen liggéey nag mooy fexe ba donga yi set mooy di leen fóotal seen i yére fexe ba donga yi duñu xiif mooy di leen tibbal ay ndab fexe ba donga yi suñu wéradee ñu mën leen faj ñett yi mooy seenum liggéey loolu nag ñu ci ciy liggéey liggéey bu am solo ci dëkk bi ndax lu amatul ay weer ci ginnaaw rek li na junni bool mën naa ne man xaw naa jege ko ci kër yi kër gu nekk da ngay tibbal daara ya nga dendal añ ak reer kon nag defe naa loolu liggéey bu am solo la boo xam ne li seen yéene di seen pastef mooy fas yéene euh, yalwaan moom duutu am ci ci ci ci ci ci Touba. te dañ ko loola ba ci ba ci ba ci gépp ndax mi ngi tàmbalee am ay banqaas ci réew mi euh, ba Tambacounda sax am na fa kuréel goo xam ne am na fa kon loolu mooy seen liggéey ci dëkk bi loolu nag ñu ngi ci jiital nag daara ji mag ji nga xam ne mooy daara Cheikh Mouhamadou Mountakha di daara Sëñ Touba di complexe bi mag bi di université bi nga xam ne Sëñ Touba daa bokkoon ci naal yi nga xam ne da koo naaloon bàyyi ko fi ndax def naa yi mu fi woon yoo xam ne yu mu bëggoon def ko lii benn la ci loolu nag njabootam gi xam loolu moo tax seen yitt jëpp ñu jëmewoon ko ci tàmbalee ko ci Sëriñ Tuubaa si mu euh, yëkkati ko ci jamonoom euh, bu doon ñeenti xaaj la benn xaaj bi jotoon na ko liggéey euh, sëñ Saliou ñëw topp ci mbooleem xulafa yi fi jaar yëpp kenn ko def ci sa waar waaye nag du am loo xam ne nag ki ko waroon a àggale mooy Cheikh mun taxaa waa ahlu xidmati day taxawaayam mooy bi mu am ci mbooleem daara yi nga xam ne moo nekk Tuubaa te mooy li ñett yi ma wax ñoom fas yéeneen kenn du leen ci man ndax bu ñu nday daara rek jàpp nañ ne képp koo xam ne ñëw nga jàpp ci université bi ñoom ngay jàppale képp koo xam ne ñëw nga jàpp ci daara yi ci dëkk bi ñoom ngay jàppale ndax nday moo war a boot moo roggante moo war def lépp loolu moo tax nii taxawoo daara yi ci biti noonu la fas yéene taxawoo université insha allahu taala muy wàllu fexe ba wàllu dund ñu ciy jàpp wàllu set ñu ciy jàpp wàllu wér-gu-yaram ñu jàpp Euh, tey jii moo tax bis bi nga xamee ne ñëw na itam ñu xam ne ñun ñoo ci war a jiitu ñoo fi war a mujj moo tax soxna yi jaayante ne képp ku fi ñëw daañ dox sa digganteeg mar daañ dox sa digganteeg xiif incha allahu taala lépp loo yittewoo ci bis bi da nga am loolu moom mooy suñu participation ci bis bi moo tax jaayante nañ ba tey yaakaar naa ne mboolem kuréel yu bëree bëri lu ñu yittewoo ñu ngi ñëw fii ñu leen ko jox ñu ko yóbbu seen dal kon nag yaakaar naa loolu liggéey bi am solo la euh, loolu mooy taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci bis bi Eh, bànqaas yi nag jóge nañu fépp ci dëkk bi def ay kuréel macha allah ñëw kenn ku ne jaayante indi ñi indi ndox café maanaam daal lépp loo séntu ci dalal gan rek indaale nañ ko fi. loolu itam maanaam amuñ ci xaaj ak seen képp koo xam ne ñëw nga ne da ngaa soxla ndox rek dañ lay jox nga ànd yëbb sa dal ñoom itam ñu jël di servir yeeg mbedd meeg penc meeg fépp rek. kon loolu mooy seen liggéey macha allah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan Seex Muhammadul Muntaxa lii yàlla na ko jiitalu yàgg yàgg yàgg yàgg. Diouf Daara Khoudous ndeyu daara Euh, def ci nag sama yitte def ko addi sëñ Touba jaayante sëñ Touba depuis 2008 ba léegi ñoo ngi yëngu ci daara yi di footal donga yi buñ tawatee ñu faj leen di remercier tamit médecins yi nekk Touba yëpp ndax ñu ngi ñu jàppale ci loolu waaye dëgg-dëgg daal li ñu manqué mooy am nañu yittee daara ñun dayee daara yi Touba ba tayif nag ba Mbàkke Kajoor ba daaru mën na see xaw a ball ñu bari may seen jëwri ci njiitu nag rabita bi sëñ xaali jaxate xanaa nag ñu ñaan sëñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi te wér ndax ku daara ñor la danañ jox ay dund dugub ceeb yëpp mu ñëw ci daara loolu moom ñoo ngi koy yëg ñaan nag sama sëriñ bi ma santoon daara muy Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ci ndigal laa ko tàmbale woon yal na fi yàgg te wér depuis 2008 ba léegi la ma joxoon ndigal ma di ko def. ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal sëñ Muntaxa yal na fi yàgg te ci bis bi nag mooy. ñun ay yaayi daara lañu ndax danoo ànd jàppoo di dimbali daara yi tudde sunu bopp Ahlul Xidma ànd ko sëñ Abdoulaye mi muy suñu jëwriñ jiitu ci suñu kanam dinu jàppale dinu xàllal dinu woon yoon wi ba yàlla dogalee bis bii ñëw mu wax nu ko ne bis bi kat ñëw na egsi na ñu jaayante ay ndox ak i kafe ak i meew indi ko fi ngir joxe ko fi ay xéewal ngir ñun gannaaw danoo wax ne fii daara la te ñun danoo wax ne ñun ñoo ànd bëgg a jàppoo dimbali daara yi ci fóot ci di togg di leen tibbal ay bool dañuy def ñetti weer yu ne ñu dem def suñuy versement dajale suñuy xaalis su jënd bool jotee ñu jënd ay junni junniy bool la ñuy jënd di ko séddale suñu moroomi jigéen yi ngir ñu ci mën a tibb di yéen yóbbul donga ya ca daara ja kenn ku ne jigéen ju ne daara ja nga gën a jege ngay tibb añ ak di leen ko yit ngir bëgg yalwaan mi wàññeeku xiifu gone yi wàññeeku jigéen ñu jigéen ju ci nekk nag tey ndey daara dan day wax koñ ba nga dëkk nanga nga woo sëriñu daara ba su xale yi tilimee mu dajale fóot mi yëpp la nga wut sa omo ak sa saabu woo say moroomi jigéen ñu fóotal leen ba nu set wecc lu ca xottiku ñu jël sunu pusaag ñaw ko dem jébbalaat leen loolu mooy sunu liggéey sun taxawaay ci bis bii nag moom mooy danoo mënul lépp waaye kon kenn du fi def dara ndax comme gannaaw ñun dañ ne ñun ñooy yaayi daara yi lu waaye di def ci daara rek ñun nga ko defal ñuy sant sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér te nu ànd koog moom di sant sama moroomi ndey daara yëpp ndax kenn bëggatul dara kenn ku ne jaayante nga la nga am indi nga ko kenn ku ne fa nga ne yaa ngay jàppale dongo ya nga dëkkal di jàppale sëñ daara ba ciy basang ciy saabu ci lépp kon ñoo ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi seenub liggéey yal na ko sunu borom teg ca kanamu yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba.